population bi lee maire bu Fouta la ñuy waajalee seen tabaski bu ñu sukkandikoo ñenn ci ñoom ñu ngi xam la ne kontaan nañu benn yoon ci mbir yi ni muy doxee li ko waral nag di réew mu méttee métti boole kook ay manifestation yu tar mënuñu dem mënuñu dikk waaye lu bëree bëri ci seen tabaski mënuñu ci gis seen bopp bu ñu sukkandikoo ci ñoom tabaski yi fi jaar gën naa neex gën naa ëpp doole tabaski ren bii. salaamaaleykum sëñ bi nuyu nañu waaw ñu ngi lay ziar. gis nañu lu euh, des baytul ñetti fan si des est-ce que nañ leen dundee mu toll préparation bi. waaw bi ñu ngi préparation de nañ ci bagage sec mais tamit dëkk bi. xam nga rek affaire événement bi moom des na dox quoi ñu jënd tegaale nañ yéen a di xaar. est na moom teg de la République. bon président moom mu jàppale ñu rek ñu ñuy lancé mu jàppale ñu defal ñu si réew mi jàmm bëgg moom jàppale ñu rek affaire lépp si am na nekk jàmm jëmale ñun commerçant yi ñu am dara gis nga drapeau événement bi nii gis nga fii nu mu wéetee événement trois jours yi des gisagoo dara ñaan président bu jàppale ñu moom loolu rek la ñuy ñaan defal ñu jàmm rek lañ bëgg ñun moom nañ am jàmm rek liggéey suñu lu nekk mën nañ ko ko amee fii ñu nekk ñaan président mu jàppale ñu rek ñu jàmm quoi kon événement tabaski bu daaw na benn différence moom am a mag am na différence bu trop sax xam daaw moom fii da ngay gis ay fees del ni da ngay liggéey naa sama bii moom de trop mais si moom fii moom gaañ neexul dara waaw. merci jaajëf. ok merci waay. asalaamaaleykum sëñ bi nuyu na. waaw maa ngi lay fay. pour beeg sant bi. Pam Ndiaye ngay wax. Pam Ndiaye naka ngeen waajal événement bi. waaw événement bi gis nga ñun ay marchands ambulants lañ quoi ci kaw tali bi nii lan yaakaar ci la ñuy joobee. gars yi xëy xëy invité gendarme ñu ni dàq ko waa ba a liggéey mënuñoo liggéey ñu ngi ni toog di lido lu waral dàq dàq bi dara xëy di liggéey kese péage la ñu ne wóorul affaire yooyu noonu te ñun ñun xam na bu baax fi ñu teg suñu tànk xëy di liggéey ay mois ngi ni ñu ngi fi am lu ñu suturloo comprends nga suñu waajur ñu ngi xaar te fi leen war a amee lu leen war a joxe comprendre nga. mais gars yi bu ñu jógee ñëw di ñu. mais gens yi mënu ma ko jaay damay toog parce que amatu yaay laa yaakaar rek gars yi ñoo ne fi taxaw ku fi yéeg ñu jàpp la da ngay yéeg ñu lay dàq nangu say base yóbbul tardeel la quoi tamit ci événement bi nii xam te trois jours moo des julli gi mënu ma waaw a yi gaañ mooy loolu quoi dañuy toog di li loolu. billaahi. ban message ngay laaj le président de la République. ah président de la République nanu jàppale rek nanu jàppale quoi gën jeunesse bi xam nga ñun suñuy morom di def naka suñu noonu mën nañ ko. mën nañ ko barke yàlla mais defuñu ko suñu doole lañ yaakaar daan suñu doole xam nga nañ def leneen mën def lu ñu neex mais dañ daan suñu doole quoi nanu jàppale ah. ñu yërëm ko ay ndaw lan. kon donc kon événement wu daaw bi ak benn différence bu mag a mag. a am na différence parce que bu yàggul leen fi jóge ci ay coow jàppal bàyyi xom ma Sonko keneen ak keneen ak keneen mënuñu liggéey ba tey jii nii nii nii am na ay booy yu bëri ñu ngi leen jàpp ci biir fii nii mënuñoo liggéey si xañ nañ seen i mbokk mënuñoo génn mënuñoo gis seen i tamit gars yi tamit nañ ci jàpp quoi pare boo jëlee gaal dem ñooy da ngaa xaru da ngay teel sa bopp mais loolu mun na ñàkk ndax ñaaka de il faut ñu dugg ci gaal yi dem da nga teggi moom par force la. salaamaaleykum sëñ bi nuyu nañu. maaleykum salaam ñu ngi lay delloo ziar. tur beeg sant. man Cheikh Cissé. Cheikh Cissé na ngeen waaj a préparation tabaski nga xam ne ñetti fan moo si waaw instant bi moom wax dëgg yàlla ñu ngi si waajaay instant bi ñu ngi si waajaay tabaski bi di ko préparé xam nga ku jéem a satisfaire si ni parents quoi instant bi nag ñu ngi au job mais pour l'instant nii waroon ñu fekk si kaw terrain bi mais gis nga xam nga ak mobilisation mi ñu toog la xëy gis ñu wàcce ñu ta on sait pas le pourquoi quoi. lan moo tax lan moo tax gendarmerie. waaw parce que gendarmerie instant yii dañu wax topp instant ñun ñun amoon lu ñu gënal xam nga du ñu taxaw fii si kaw tali bi tey ku si nekk tey boo amoon lu la gënal yaa ngi gérer sa place parce que gars yi nee na bitigu mbagg boo gis bu soñoon am magasin mais comme amaguñu magasin nag dañoo nekk ci terrain bi ngir bañ ku ñu yeb xam nga di fayet suñu live suñu neexoon ñu dem dóor yi sàcc ji xam nga daf lu ne mais dañoo nekk bi gérer ngir jox suñu parents yi loo xam ne dafa lew mais instant yi nag gars xam nga parce que instant bi fii nii boo amul embouteillage doo ñu fi gis parce que ñun ñëpp ay responsable lañ xam ne lu baax xam ne lu bon mais ñoom gisuñu loolu quoi instant dañuy ñëw xam nga tey instant bu la jàppee fii xam nga dina la tàddal yóbbu la koso si loo xam ne nii on sait on sait pas le pourquoi quoi c' est ça le problème c' pourquoi benn instant ñu toog nii di dollu ba xam ñoom lan mooy seen programme waaw. ban message nga laaj le président de la république. waaw le président de la république moom message bu koy lancé rek mooy. le ma sans sans l'emploi des jeunes on on peut pas se développer sans l'emploi des jeunes parce que le jeunes sans métier sans travail seulement c'est le travail qui paye si on n'a pas de quoi travailler on peut pourrait on pourrait pas se développer seulement c'est le président qui doit nous aider dans si, les bonnes conditions pour qu'on puisse avancer mais ça ça ça ce que nous sommes en train de faire là c'est pas un travail Hein? C'est tout simplement on est en train de gérer pour satisfaire quelques besoins à nos parents, mais ce n'est pas un travail. Parce que nous, nous, tous, on est des intellectuels, on a des diplômes. Cela veut dire que la majeure partie des jeunes doit avoir du job, comme le disent anglais. Mais le Sénégal, ce que j'ai vu là, comme les anglais disent que tout good is not IC, hein? tout ce qui brûle ce n'est pas de l'or, mais ce que nous sommes en train de vivre là, hein, ça nous avancer, ça ne nous, ça, nous met pas dans le développement. Comme le président doit nous aider, hein, créer des emplois, des usines, hein, des milliers de travail qui peut, nous permettre de laisser ça, ça, c'est ça, c'est pour Le fait de vendre sur les roues là, on n'a pas créé la route pour les emblaments, mais hein. on a créé la route pour les voitures, mais pas pour les piétons. Mais si on n'a pas de travail, on n'a pas de soi, qu'est-ce qu'on va faire On va aller voler, hein? on va aller euh, agresser. Non, non, on ne le fait pas. On va cesser du travail. Et c'est ça que nous sommes en train de faire, alors que les gendarmes disent non, vous ne travaillez pas ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire On va rester là. Est-ce que ça c'est bon Ça c'est pas un développement. Ça, ça c'est normal, c'est pas un développement. Et ça, ça fait partie de... Si, on me dit que tu es un Sénégal, moi je dis que je n'ai pas envie de vivre au Sénégal, parce que c'est pas de quoi travailler. travailler quoi. oui merci beaucoup. maaleykum salaam ñu ngi lay ziar baax. na ngeen dundee na trois waaw préparation tabaski bi ñoo ngi si. waaw ñu ngi si événement bi instant bii ni gis nga marchand ambulant yi. bu dégg bëccëg duñ nelaw parce que cinq heures du matin la ñuy yeewu ñëw fii nii xam nga ba heures wala une heure du matin la ñuy wàcce fii nii xam nga. bëgg daan suñ doole rek waaw bañ kenn yam ñu mais nag euh, di ñaan président bi rek mu doon ñu métier xam nga ñun ñi taxaw ñi ñëpp ñëpp ñu si ñoo xam ñoo xam ne mën nañ dara ñeen ñi jàng nañ am nañ seen i diplôme am na ci ñoo xam ne am na mën nañ seen métier mais gisuñu fuñ ko mën a defee xam nga moo tax ñi ñëw fii di jaay suñu café Touba ak suñu ndamaraas ak ñi jaay ay mouchoir xam nga loolu moo la ban message ngay lancé la président de la république waaw président daal li ñu koy lancé mooy pour ñu wutal ñu métier ñun seen waaw sonn nañ trop sonn nañ trop boo gisee gars si mbëkk mi gi jëm si feneen ak feneen xam nga lii rek moo tax booy dañuy jóg xoolal léegi wàcc nii gis nga boo yaa ngi nii si ginnaaw fii mooy daara ji Cambérène boo yaa ngi nekk fii ci ginnaaw ah Assalamualaikum sëñ bi nuyu na waaw ñoo ngi lay siyaare bu may sant bi magay sànq seen naa la nga sikkar sikkar waaw gis nga mayaat ma waaw gis nga may ma ko sikkar lu ma lay may sikkar bi laa ilaaha illallaah ñoo ngi siyaare faal léegi nan ngay nan ngay dundee lu parents yi ñu lay yaakaar tey suñ palaat yi lañ yor di si xooxlu xam nga gendarme yi di ñu tàq fii xam nga. la moo tax gendarme yi di leen tàq pour autoroute ak péage bu wàcc wàcc bi nii la ñuy aaye.